Assalamualaikum mbooloo mi ginnaaw bi ñu sant yalla julli ci sang bu tedd bi ñoo ngi nuyu mbooloo mi fi fekk yépp di beral nuyo Cheikh Ahmed Tidiane jité mi nga xamni kilifa la ci gox bi ak kuta Sall mi nga xamni sama jigen la dëkk ci gox bi di leen ziar bu baax a baax a baax eh, di leen xamal ni tey jii suñu ñëw bii tey nekk na ñëw boo xam ne nii ci yéen ñaar ñii nga xam ni yéen ñooy yéenay samay nit yéenay waral tey jii ñu ñëw toog fii tey jii ci turu Siré Dia et eh, yàlla def tey jii ma ànd ak délégation boo xam ne nii délégation bu Siré Dia fonk la délégation bu Siré Dia faale la moo waral tey jii mu def délégation bu mag bile yoon ñu fi tey Cheikh pour ñu ñëw seet si leen délégation bi nag ñu ngi ci ànd ak Pape Sarr mu nekk kenn ci Siré Dia ànd ak jigéen bi nga xam ni mooy coordinatrice bi nga xam ni moom la Siré wóolu mu toog nii muy Ndey Daba ànd ak kii nga xam ni moom it kenn la ci Siré Dia muy Lamine Gaye di xaritam di léppam ànd ci ak ki nga xam ni moom saa yu Siré Dia ñëwee weekend saa yu ne guddeeg bëccëg xale ak lépp ñoom ñoo doon ànd moo toog nii mooy pa mooy jaxu sàll te moo jiite délégation bi ndax mooy kilifa kër Siré Dia ànd ceeg sëriñ kër mi toog ñu koy wax alu moom it juug la bokk teg ci ànd ak Samba Ndiaye Samba Ndiaye mii nekk na koo xam ne jaratul présenté Thiès gépp xam nañ ko muy porte parole Siré Dia ànd ceeg sama beneen rakk bu naan maas ba moom dëkk Grand Thiès ñun ñëpp ñoo àndandoo tey Siré yónni ñu fi ak Madiagne bu dëkk kër Ma El Hadj moom it kenn la ci Siré soo demee kër Ma El Hadj jàmbaar la fa uta loolooy délégation kër sire ma mbiral ni la tey jii ñii fi ñëw. nekk nañu ay nit ñoo xam ne ñu Siré Dia fonk ñu Siré Dia faale moo tax tey jii mu ni Lamine Gueye ak Pa Diakhou mi nga xam ne yéen a jiite délégation bi ànd leen ngeen dem seetal ma Cheikh Ahmed Tidiane jiite ak ku tas ku sàll pour ñu ñëw tey jii moo waral tey sunu tànk yii tey ñëw seet si leen tey nag su ngeen gisee mu demee nii a ah man Mansour ñëpp xam nañ ko borom daare ji tey daaraam. mo am tay conférence yu mag ci keur Cheikh Ahmed Tidiane jité mi motax Cheikh mi amul amul jot sax mais lu muy Siré Dia la mu bàyyi activité am ñoo tew ci kon ñing leen di gëreum di leen nuy di leen sant Cheikh li nga wax ci Siré nek na lo xamni ñun lu gëm la wane nga ni yow ci Siré nga partenaire Siré nga man loolu la luma ci introduire di leen wa assalamu alaykum mbokk yi. Eh, ñu ngi leen di ziyaara di leen nuyu di ñaan yàlla jataay bi yàlla na ko yàlla fulandi def ko jataayu barke ak teraanga ak wërsëg di am mbégte lool ci délégation bi nga xam ni moom la Siré Dia yabal ngir fonk ma ndaxte dañu waxoon rek na fàllu ñëw ak kenn ci yéen rek ñu xool waxtaan ak eh, mbooloo mi ñu seet nan la ñuy installé woo pour beneen yoon ñu mën fee daje mu gën a yaatu boobu maa ngi xalaat euh, bis bii nga xam ni moom la dajeel waaye ma leen di wax euh, kii Couta moom mooy kan Couta du meeru mbootaay rek Couta dafa nekk ci koñ bi man ma wóolu ko ci sama biir kër dénk ko sama kër moom moo yar samay doom samay doom yëpp fii la ñu màggee fii la ñu yaru bu kenn di dem fenn moom demul fenn fii lay toog nekk une femme boo xam ni femme de ménage gere njabootam gérer waa koñ bi bëgg ñëpp ñëpp bëgg ko tous les mercredis wala mois bu nekk ci mercredi wala ci ñaari fan yi faamu koñ bi yëpp fii lañuy ñuy daje ñoom ñëpp fii lañuy daje. yàgg nañoo politique ah mais du politique bii mooy mooy seen objectif ñoom dañoo am seen mbootaayu bopp di ko doxal mais ci biir mbootaay yooyu da ngay gis nag les politiques dañ ciy bëgg a profité politique bu nekk ku nekk ñëw na fi Karim ak ñoom ñeneen ñeneen ñëw nañ fi. waye dafa mujj retiré wu tok puisque amna mbolo mu nek ci mo moo xam ay dignitaire lañu man na xani fi ñi fi tek ay kilifa lañu parce que ku ci nek sa bir keur te kilifa nga am sa njabot mu bëgg a retiré wu tok ni man sa mbolo mi ma yoré politique yi duñ ko yak kon mo man je préfère tok sama keur ñu continuer sunu yëf yi daan def puisque même sama jabar ci la bok ñe munta ñew fi te seigne Mansour mo xewle ci la bok muni kon léegi na tok ya très longtemps mu toog ba benn jour laa toxal sama sama soxna mu ni ma ku te ñëwoon na fi mais dani daal mbooloo mi ñu ngi ci loxoom ñoom ñëpp waaye moom du bëggul ànd ak politiciens yi nga xam ne ni ñu jëflante woon ak Karim cest à bàyyi ñu fii rek ah jëflantewul ak ñun ci dara bàyyi ñu fii rek ñu toog ba finalement gisuñu dara ma retiré sama mbooloo ñu toog di liggéeyal suñu bopp dama bëgg wax dégg naa Siré Dia ni moom moo waxal loolu dégg naa Siré Dia ku amal njëriñ waa bi ma ko waxee ma ne ko de Siré Dia de li ma ci xam yëpp sax yow xamoo ko ndaxte Siré Dia ñëw na fii seet si ma te man mag Siré Dia ci buntu ci fàllu la moo tax ma xam ko fàllu mii moom moo tax ma xam Siré Dia parce que moom wax ni Siré Dia ja jëflante nag ak kilifa yëpp yow nag da nga effacé wu mais il faut nga jàpp jëflante ak Siré Dia ba mu ko waxee ci la Siré Dia ñëw fii ñu jëflante ma moom. la ma doon la ma bëgg la ma doon ci la ma doon nekkoon moom mooy comme que ñun ay sëriñ la ñu ñaanal ko rek yàlla jàppale ko. loolu la ñu dem naa ba biroom ñu toog waxtaan lu bëree bëree bëri mais ak waxtaan bi yëpp musuma xalaat ni dinaa def politique dinaa dajale ay nit wala wala ci sama koñ dañoo wax cadre waxtaan ci cadre jàppalante ak ci kaw ma seet yan kilifa laa fa mën a booleel ak ci cadre ñaan loolu rek ci la ñu yemoon. mais kuta bi mu ñëwee nag wax man dafa bëgg jëflante seen ma ne ko man loolu nag laa bëggoon sax man. ndaxte Siré Dia lebal na ma loo xam ni vraiment ak fàllu lebal nañ ma loo xam ni bëgg naa ci sama biir koñ mu am fi mbootaay boo xam ne man maa koy boot pour ñu jàppale Siré Dia ndaxte man tam imam mënuma di dugg ci kër naa leen kaa leen jàppale Siré ja man mënuma loolu ma li may man mooy gis mbootoo mu ñu mbooloo moo xam ni nangu ñoo bootu ci sama ginnaaw ma gunga leen ci Siré Dia ñii nag ñoom ñëpp maay seen imam maay seen kilifa foog naa pour la première fois muy dugg ci kër di wax waxi politique mais kii daf ma ko jaral ku baax ngi ni ku yaraw ngi ni gis ki ñeppay sawar ci mom sila je bu doon ñew fi nit ñi dem ci conférence bi tax de ak mu gattal ko mais bu sila doon ñew fi fogna ñeppay ñew ragal na sax ñu bari dinañ la li ñu bari nañ du question sila ja waye mom mi motax kon mu bëgg fallu ngeen jappalé ko eh jigen la jo xamni bu ngeen ko jappalé wallahi di ngeen ci am lu ko sen jot kon vraiment man content na trop ci kuta wax ma lolu ma and ci ak mom wax ko fallu ci sensé mu réagir si reja tam xam sama relation mom ci sensé mu gëna réagir lolu content na ci té dina am ño xamné dina len informer mhm. ñu wallahi dañu absenté man xamna lolu fi buñ do wala ngeen wala ngeen wutat lay la ba bu joggé nga waxtaan ak ñom bo collaborer ak ñom nga wut benen bis pour nga ñew fi di nga gis lu kawé sa ñor man xam naa loolu kon bokk sire tam ku neex a jàppale la man taalibe Cheikh la dama ko bëgg sama xol sire Dia dafa neex a bëgg Siré ja dafa baax sire Dia dafa yaru sire Dia dafay effacé wu sire Dia li nit ñi bëgg bëgguñu ko bëggu ko moom li mu bëgg naa minaamo président de la république man nag président de la république sama gàmm layal naa ko layal naa ko borom xam-xam laa fi ma koy layalee teg naa xam naa ko naa borom xam-xam yëpp woo naa leen ci ñu discuter ci mais kenn ñangoo cee discuter نسكا يالا موختي القران اتي الله واتي الرسول واولي الامر منكم واولي الامر منكم اي بريزيدنت لا ريبوبليك دا مالين ديفي نيوم نيب كو نانغ ني نييو ديسكوتي تي القران ها ني نانغ كو نانغ ني نييو ديسكوتي تي القران بريزيدنت لا ريبوبليك كين كو خيخ بريزيدنت ريبوبليك دانغ كوي جابلي كي كي كي كي كي لي مو بغ بو جيسه لول لو نخاري nga wax ko ko nga xex sax bu la nexé sax pour mu joggé fi bu la nexé xé do ko xexé ci doolé wala nga ko xexé ci xass fasénal ci sa xor ni man le président bi fi nek bëgguma moo ko fa mais kenn du ko xex alquran loolu la wax alquran dañ top len yalla top yonent bi ak mengo méngoo seen mbir dañ koy top lolu lolu devoir la mais nanguñ ci discuter mais man fuma tol dama koy wax sama gam borom xam yëpp ñu ngi top mais lima bëgg rek moy li ci gëna neex moy nga am euh, leader bo xamni c'est-à-dire nitu diina la nit la ko xamni du nit ku bon nit la ko xam du jall nit nit la ko xamni c'est-à-dire ñepp la ñepp la bëgg ñëpp ko bëgg kees ñëpp ko jox ñëpp ñëpp ko bëgg gisuma ko bëggul Thiès ñoom ñëpp am nañu yaakaar na ci moom parce que ñu fi toog ñëpp ñi bu ñu jàppalante ci seen biir dañoo amul doole bëgg nañu Siré jàppale leen jàppale leen ci mbootaay bi def ci seen kees gi loo xam ne da leen di jural da leen di jural c'est pas que ni ku ci nek ñu jox la xaliss mais am ñu caisse ko xamni ci lañuy fonctionner nga duggal ci lo xamni ñom ñep da leen di jural ñu liggey ñi ci am ay diplôme ta mëna liggey bu leen mëna jappalé ñu jappalé leen loolu rek politique réew mi bu bu événement ñëwé nak ñu dem ci urnier ya, ñu jappalé ko mu gagné mu jeex tak loolu rek la kon yalla na ci yalla def jàmm yalla na ci yalla def tawfiq wasalaamaaleykum rahmatullah bismillahir rahmanir rahim ginnaaw bañu santé yalla ci muhammad sang sang yi ñi ngi sant suñu ñaari di boole cant ak gërëm sunu sëriñ bii toog Cheikh Ahmed Tidiane jiite di ko jox wàccuwaayam di ko jottali nuyoo directeur général de la poste ku baax ki dëkk ci dëkk bi te nangoo def lu baax mag muy yaru di nuyu tamit délégation bii ñu àndal di leen nuyu si yéen ñu ñu fi fekk si te xam ni jot amul benn minute rek ku la ko may sa temps deseel dara di rafetlu dëkk bii ku te ñu ngi lay nuyu bu baax mus nañu gisante. xam naa tey la ko yàlla soog a dogal yow ñun damay ñëw au nom des femmes yi nekk ci Siré Dia yëpp te turu jigéen ñëpp laa ñëwal tey amaana li nga wax ci fàll bu teeloon avant deux jours tey bu ñu fi dikkee kenn fi xaj ndax Siré moo ni toll sire rek ci cees bu wootee ah mu des une heure de temps ñëppay ñëw di leen dalal nag di ñaan yàlla seen dikk bi yàlla bu leen ci réccu dara li tax ngeen ñëw ci Siré Dia gis ko ci dëkk bi nee naa dëkk bi naxe moo fi jóg fàtte amu fi xanaa fàtte fàtte lu fi moo fi ne te Siré Dia defe naa ku ko gisul dégg nga ko ci télé wala nga dégg ko ci rajo Siré mu Macky Sall mooy Baye Fallou Macky Sall nee naa ko niveau bi mu toll dootul xëccoo daray ndombay tànk Thiès Siré xëccoo daray ndombay tànk déedéet Macky fal na ko bu yàgg yaa yow laa fal yaa ne kees yow laa dénk kees doy na ci aw fal bugg fi leen taxawal fi Macky Sall rek falaat ko mu amaat deuxième mandat ñu préparé waat suñu élection locale yi dans cinq mois bu euh, élection présidentielle yi passé di leen dalal nag di wax Kër Siré Dia nag ku dikk tey ak ki fi ne démb yam même pied d'égalité ñu ngi leen di dalal ku te ñoo ngi lay dalal bu baax fi nga jóge doo ci réccu dara Siré Dia Dia ku jóge feneen ñëw ci moom boo dikkee di nga xam ni Siré Siré Macky Sall mi ngi toog Thiès ki uuf ñëpp ki def coordinateur ci commune est bi dellu def ko tête de liste départementale gis ngeen ni mu fi taxawee li ma naan toujours ginaar du topp ki taxani woon te ki bojj toog Siré bu nekkee ci dëkk bi di def lu baax def financement des femmes ak a fonk jigéen ak am fu mu teg jigéen ndax dafa bëgg yaayam jee toog ca kër ga. financement be des femmes bu ko dee def ci kër dëkk bi lebalul kenn dara lu mu joxe da ko maye xoolul surveiller wul visitul def ci lieu de culte yi muy néegu yàlla yi ne ci dëkk bi pourtant de dëkk bi acte 3 bi dañoo def trois communes d'arrondissement bu ne responsable Macky Sall nga fa waaye Sira dafa ne maa bañ Macky daf maa yónni Thiès te def ma yónni yàqamti ma fépp fu mu war a am ndam rek dinaa fa taxaw muy jàq yi di jumaa yi di lii di di bi di lamb gi di football bi di lépp di emplois des jeunes li ma ko naan le de l' emploi des jeunes à Thiès Sira Dia moo ko yee emploi gëjoon na fi. bachelier yaa ngi fi woon licencié yi ñoom ñëpp ngi fi woon kenn amul woon loo def waaye Siré bi mu dikkee ah la Macky campagne woon ni jeunes yi naa leen wutal liggéey seul Siré Dia moo ko tontu. nee naa ko jox nan la poste waaye tontu nga ko ci ay poste benn xale bu góor taxawaalootul te bu ko neexoon yemale ko ci commune est bi ah yemale wu ko ci commune est bi trois communes d'arrondissement yi. raison yi foo dem Siré Dia def na fa ay poste rien pour jàppale Macky Sall bu ko neexoon fee la yem ci est ba mu dëkk nee na moo bañ. Macky ko yónni daf koy yàqamti yàqamti moo muy 2019 bii ah danoo bëgg a battre campagne ci unité àndandoo doon benn. kana danoo bëgg a doon benn ici à Thiès si te Senghor bi nga dëkk sama càmmiñ lii boot la ànd ak yow lii du lu du ndaw lii mu def ba yitteem yëpp ñëw toog ci yow yow boo ne bëgg nga Siré Dia dinaa gëm ne bëgg nga Siré Dia ndax Siré man ku ko bëgg dama lay bëgg. aw xaj bu tawagee sax nee naa di mbawal sira ja man damay dem dégg lu muy mbaw lan la ndax siree ni toll dan koo lebal nee naa ko ku la lebal ker guddi nga koy fay ndax guddi amul jant lu ko waaye lebal fay na la ko damaa bëgg ngeen taxawaat fu waay nekkoon ci beneen parti opposition boo nekkoon xam nga ni siree ja kenn rek la li ne ci dëkk bi kenn dootul toppati maa la bëgg rek bu oto taxawee ma ciy daw man de doxatuma ci loolu te defe naa sama moromu jigéen ñi doxatuñ ci ku ne am nga sa chamign am sa jëkkër am sa rak ju liggéeyul am ay nena nee kër bu amé ñaar fukki nit ñu jëlal fa kenn muy fay courant ndox di jël ciép déssel la dara kon dama bëgg yeen jigéen ni toujours ci yeen lay wax lu bare ndax ñun ño ëpp jot goor ñi té ño mën ci kër yi boy jappalé nit da fay am lo koy jappalé kana nga taxawu ci sa koñ bi ku amul extrait de naissance de wuti ko ko amul carte d'identité bu réeree nga dem def certificat de perte dina leen ci jàppale bu baax ndax booy dem guerre te amoo arme bu yeboo nga dem tëdd buñ la rayee yaa tooñ sa bopp te ñun suñu guerre suñu arme mooy suñu carte électeur yi commission bi dina ubbi d'ici le 26 na ñëpp dem inscrit ji nas fanaanal jàppale nit du ci tëgg du ci way du ci daje rek nii day wut sa kart dugal sa armoire denc ko toog nañ di ko jàppale di dugg ci base bi li tax ngeen ñëw ci sire Siré Dia bu laa ko wax toujours ki nga xam ne wul benn yoon ci liggéeyu Macky Sall tàyyiwul benn yoon nu waay dikke mu ànd koog yow responsable yi fi nekk nangu na ñoom ñëpp ni mooy seen doyen uuf leen ci liggéey Macky Sall rek ko ñor ak falaat ko en 2019 yàlla na ci suñu borom bi yóbbu te yàlla defal ñu jàmm ñu ngi leen dalal jàmm li ngeen tax ngeen ñëw yàlla bu leen ko réccu Siré daal mi ngi fi Macky la fi nekkal fal Macky ñu ñor te yàlla na ko suñu borom bi def au dès le premier tour yal nañu yàlla may kattan gu ñu faree Macky Sall ci darajay Mouhamed ñu ngi leen di dalal na soyez les bienvenus waaw di dalal suñu càmmiñ yi di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér fekk ak tal wasalaam. Euh, asalaamaaleykum kenn ku si nekk ñu ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant. Euh, di tàmbalee ci nuyo bi suñu sëriñ muy oustaz Cheikh Tidiane jiite di ci teg euh, suñu sœur bi nga xamante ne suñu yaay la ndax suñu yaay sàll sant ñu la ciy teg yow it vraiment di nuyu waa Cité Senghor lépp waaye wax ji li muy neex neex neex neex neex li sëñ bi wax a ko gën a neex ndax xam nga Siré Dia yow de li nga wax ci moom moo am mooy leader boo xamante ne ñëpp xam nañ julliteem soo waxee dafa ne politique sama diine laa jiital mooy sookul bi du ma yor wird ba nii ma toll di wax nit naka sadul noonu ëllëg ak si biir bu ma ko gisee may sëgg nee na képp ku ma gis man Siré Dia dinaa ko ne jàkk nga ne ma jàkk ku ma lebal liibar ma fay la ton kooku ku koy wax ci politique xamal ne kooku diine la jiital d'abord ndax politique bu fekkente ne nitu diine nga ngay politique ragal yàlla foo dem nit ñi sopp la foo dem nit ñi bëgg la moo tax léegi bañ na ko ba gaay waxatuñu sire Thiès sire Sénégal la nit ñi di wax loolu da ko wane tey ndax sëñ bi ñëpp xam nañ ne danga ngaa xat ñëpp xam nañ ne sa frère dafa woote tey waaye boo bàyyee lépp tey toog ak daraja ji nga xamante ne sunu borom defal na la ko loolu sant nañ la man ci suba ay 11h ci suba bi ma ko bi ma nee DG Fallou de wax na dem bi dafa ne na ngeen fa dem. na ngeen gën a féddaliwaat sama kóllëre sama diggante ak moom te xamal xamal xamal ko ne incha allah mbooloo ma dinaa ñëw ba ci ñoom waxtaan ak ñoom jàbbet jàbbet bu mu am intermédiaire loolu siree ko wax nuyu nañ la sant nañ la ci kàddoom ndax ay waxam la soo seetee ñi fi teew tey fii nii yëpp kii mooy responsable soxna yi kee xaritam la kee porte parole la porte parole la ñun ñii suñu diggante ak moom tam ñëpp xam nañ ñun ñii ni ñu ak moom. kon yaakaar naa ne délégation bi fi teew tey lii mooy délégation Siré sant nañ leen gërëm nañ leen politiquement fii mu toll sire daa tontu boppam ndax tey ñëpp xam nañ ne ni kon soxna Ndeye Daba di waxee. benn slogan la am mooy réélire le président Macky Sall dès premier tour te yaakaar naa ne politiciens yëpp fi mu toll nii ñu si bëri ñoo nga toog seen kër yi di xaar ba élection des ñetti fan ñuy wër nit ñi naan leen jàppale leen président de la république waaye Siré de ñëpp xam nañ ne ker la ci diggu guddi du nëbbatu du làqu ku ko woo ba mu numéro bi mu yoroon ba tey jii numéro boobu la yoraat ñëpp xam nañ ne il est accessible soxna Kouta nag da koo wax dafa nekkoon ci opposition nekkoon ci Karim Wade dem ba xamatul mbir yi nu mu koy saf parce que ñoom la politique politicienne la ñuy def askan wi yittelu leen xamuñu luy coonoy askan wi waaye yërmande gi nga wax ci Siré ak doxinam envers la population à chaque fois day feeñ politicien da ngay yërëm nit ni Siré Dia politicien da ngay social ni Siré Dia politicien da ngay dimbale askan yi ni Siré Dia politicien da ngay déglu nit ñi ni Siré Dia politicien bu boo liggéeyee euh, vendredi Ndakaaru vendredi 6 war na laa fekk Thiès nga ñibbiwaat lundi matin pour xam askan wi li ñu soxla loolooy Siré ja te noonu lay doxee moo tax président Macky Sall am kóolute ba Thiès jaxasoowee dëgg mi ne ko yow laa jiital tête de liste départementale yaakaar naa ne ku ñu jox tête de liste départementale kooku président wàccoon ak yow mu jël li fiy député delloo waat ko président Macky Sall président Macky Sall am ndam depuis politique u politique u Thiès ba politique des politiques guléet nga gis tey ñu jox nit mu jël département beeg commune bi député yi fi nekk yëpp jox ko si rajo jox ko président lu tax ndax ay jëfam ndax yàlla du fay wax bàyyi ay jëf si rajo loolooy ay mbiram ñun nag bi ñëwee fii suñu xel dafa dal ndax olof danaan benn tuba benn sëru jigéen moo gë mën na ëmb fukki te fukki euh, tuba yu góor tey buñ fi ñëwoon fekk fi ay góor suñu xel du dal waaye ndokk bañ ñëwee fekk fi ay jigéen ñii ku leen gis ak seen avec yii nga xam ne ñii yàgg nañoo liggéey te gisuñu kenn waaye nag ndokk nag ba ngeen def ba ngeen dajee ci daj dëpp gi yaakaar naa ne campagne yeeg li dul campagne financé na ay jigéen te lebalu leen yaakaar naa ne ay mbiram du ay leb du ay déedéet dina leen jàppale dina leen taxawu dina leen mot mag dina leen mot nijaay incha allah. ñun nag ñu ngi préparé ay échéances yoo xamante ne échéances yoo xam ne yu ñor Siré Dia la mooy falaat président Macky Sall dès le premier tour oustaz da koo wax de koo woo débat mooy li Siré Dia wax barki dëmb sa Seck balaa moo taxaw di wax. loo xamante ne ay woonaa président Macky Sall ci débat kooku mooy ñàkk xam institution ñun duñu bàyyi suñu Cees gi ñëpp sonn ñëpp tumuranke nga jël mairie yi takk nit ñi saret yow lijjanti woo loolu ngay lijjanti ay débat yoo xam ne yow président de la république nga koy wax te yow tu n'es même pas troisième personnalité bi nga xamante ne yaa nekk ci opposition bi ñun loolu li ñu yitteel mooy lu ni mel ni ñu ko waxee ngeen jël seen carte yi fexe nit ñi amul kayit ñu fexe bindu ñu jël ndam lépp jox ko Siré Dia mu jox ko président Macky Sall ndax yaakaar naa ne amatul nelaw Siré Dia mu lekkatul naanatul benn objectif la am mooy réélire la président Macky Sall dès premier tour loolu ñu ngi ciy woo ñëpp oustaz sant nañ la gërëm nañ la soxna si incha allah di nga toog Siré toog oustaz toog fàllu mii toog ndax kat Siré moom amul intermédiaire du leader boo xamante ne otom vitre teintée la moom dong mooy leader bi nga xam ne amul garde corps otom du vitre teintée këram boo ñëwee fe boo ñëwee gis ko birom bee boo dëkkee Thiès jomb na nit paas jóge fii dem bam ba birom te doo ko gis loolooy un leader dangay da jege population bi te si Dia noonu la mel taalibe seex la waxkatu dëgg la kon woo nañ leen ci moom te incha allah incha allah dingeen xam ne kat ah xorom diis na ndax Siré Dia ku ko téye di nga xam ne du moromu gaa yi du xaar bañ na gannaaw suba mu ñëw joxe fa cinquante mille ak saaku ceeb déedéet moment bii ñu ñëw leer na leen ne moment wu dëgg la su dul woon moment wu dëgg duñ ñëw dañuy xaar ba élection yi des ñaari weer ñu ñëw waaye fi mu toll nii élection yi des na onze mois onze mois yooyu ñun ak yéen ak Siré Dia ba falaat président Macky Sall wasalaam. ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yeneen tam bu tedd bii ñu ngi nuyu mbooloo miñ fi fekk yëpp ci turu directeur général Pape Siré Dia euh, toftal ci nuyoo bi sunu sëriñ sunu imam Cheikh Ahmed Tidiane jiite bi nga xam ne defe naa ne kenn dootu ko présenté fii Thiès euh, teg ci nuyoo bi ci responsable des femmes Kouta Sall bi nga xam ne moom moom ngeen toftal ci bopp seen euh, mbootaay mi fi nekk je pense que oustaz wax ji. daanaka day xaw a jafe tuuti ndax bu Ndeye Daba waxee Lamine Gueye wax li ñu wax ci directeur général euh, j'ai l'habitude de dire que ne waw du weesu koŋ waaye nag euh, il faut que ñu indi ay assurance indiwaat ay garantie tamit dalal sa xel oustaz dalal xelu ñoom fàllu que leeral nit ñi aussi ne tey li ñu fi indi du woon meeting du woon tamit ay daje pour xumbal wala dara dañu doon ñëw rek pour seet si Kouta ndax oustaz waxoon nañ ne am na déclaration bu muy def jëmale ko ci nit ñi mooy wax na moom at mbootaayam les responsables les dignitaires yi fi toog dañu jóge ci Karim Wade ñëw ci ndigalu Cheikh jiite ñëw pour bëgg a fas yéene collaborer ak le directeur général Pape Siré Dia ci li des ci seen parcours politique pour ñu mën a jox président de la république ndam li ci élection lii ñu dëgmal deux mille dix neuf dès les premiers tours loolu mooy li ñu fi sabab indi waaye li ñu fi fekk li Lamine wax dal na xel. ndax yaakaar naa ne ku ñëw fekk fi responsable femme yi gis qualité bi nekk ci jotaay bi xam nañ ne at xat-xat at tey ni koñ bi mel at Serigne Mansour li mu organisé ngeen ñëw toog kon xam nañ ne bu ngeen woote woon meeting fii dëkk bi toj et am naa satisfaction nag boo xam ni je pense que tey ñi ñu àndal ñëpp am nañ ko euh, te directeur général bu ko seetaanee aussi. gis ñii ngeen wax at kàddu yi gis Cheikh Ahmed Tidiane jiite mii toog dina gën a am contentement dina gën a am assurance par rapport ak fi ñu jëm ndax dama ne man léegi sentiment bi ma am mooy gëm naa ne at Siré Dia at continuation bi mu jël depuis bi élection yi jeexee xam ngeen leader euh, exceptionnel dafa am leader boo xam ni euh, c'est un leader boo xam ni multidimensionnel dafa am kookoy Siré Dia parce que bi élection jeexee xoolal ndamu élection nga gagné député détrôné Idrissa Seck à Thiès fexe ba nit ñi enterré ko vivant ba kenn mënatul wax Idrissa nit ñëpp di glorifié wu. keneen kuñ fi joxoon tëdd liste fii à Thiès muy responsable bu mënti doon ku ko dirigé woon ba tey yaa ngi jubilé si rajo ba paree mu ne tourné naa page boobu génnee leen ma en mars vers deux mille dix neuf ànd ak Siré Dia falaat Macky Sall mu ne li ma war a delloo njukkal Macky Sall ndax li ma jox ma ci teral waa Thiès di jox a ci mbootaay yi di jox emploi yi di jox jumaa yi di jox si plan santé bi di jox sportif yi di jox euh, artistes yi loolu président moo ma ko jox dooleel ma kon la ma ko war a fale mooy fexe mu am deuxième mandat tëjal leen ma passe bële mën a gumaa sibile fii wëg joxuma président de la république élection yi ñu dëgmal ma fal ko dès les premiers tours waaye ku fi ñëw tey ku fi ñëw tey fekk oustaz jiite mii toog fi nga xam ne ñaan bu nangu am na ndax ku ko ñëw fekk mu toog ànd ak ñoom kuta ngeen toog Siré Dia bu tëddee mën naa nelaw ñun ñii suñu xel dal na ndax xam nañ ne mbootaay yu bari boo fi demee dañuy wax pour politique seen comme ni ko Lamine waxee waaye Cheikh Ahmed Tidiane jiite mi du ànd ak kuy nax Siré Dia du jege kuy nax Siré Dia tey bu ngeen doon def loolu sax wala mu amoon seen xel du ngeen ci ànd ak oustaz jiite kon wóor na ni fii dëgg moo fi am fii njub moo fi am fii collaboration bu franche moo fi am te Pape Siré Dia je pense que kontaan na ci lool li ci des nag mooy ngeen gën a takkaat laxasaay euh, élection amoon na fi bii ñu génn. amoon na résultat yi fi am xëy na amuñu woon lépp à cent pour cent li ñu bëggoon waaye am na lu desoon léegi nag technique boobu la ñu fas yéenee ñëw mooy statistique yi ngeen jël ko kuta comme ni ko ndey dama waxee ngeen xool manquement bi fi amoon ñaata fois la ñu ëppalee woon ngeen seet nan ngeen inscrire seen biir xool ñi amagul këyit te war a dem am këyit pour élec dem élection yi ñi am 18 ans pour mën a voter ngeen seet lépp fu ngeen ci tëlee. bu ngeen fëggee nday daba wala ngeen fëgg fàll wala ngeen fëgg ñoom Lamine wala oustaz jiite lu mu war ñun dinañ ci taxaw parce que loolu rek mooy sunu liggéey ba guddi mooy sunu liggéey ba cëg fexe nan la ñu def ba Siré Dia am ndam jox ko président de la république kon bu leen ci tàyyi bu leen son te bu leen ci déglu kenn ndax euh, nit booy ànd ak leader da ngay ànd ak leader di ko copier Siré Dia Euh, du tontu Siré Dia du wax lu ñaaw Siré Dia loo ko fekk muy def mooy liggéey lu jëmale président de la république kanam kon nag boo nekkee leader da ngay roy ci ay jikkoom moom jikko yi sell lay dund mooy que liggéey at jaamu yàlla laa xam liggéey pour président am ndam coow li dina bari bojo bojo yi ñu ngi fi di wax ku nekk di wax waaye président xam na ne on change pas une équipe qui gagne. leen di sant di leen gërëm. ñu commencé ko ci bismillah rahmaani rahim paré ko ci alhamdullah rabbil alamin bo gisé li tay ma def ko tay cheikh jël na parole sax wax na li ma waxon ak moom xana dama ci laal rek ndax euh, affaire bi ni ko cheikh waxee dama dem waxtaan ak moom mune ma li day solution bu rafet la parce que contane na ci waxtaan bi nga ñu wax ak man mune ne nga ne ci Karim wad la nekkone Eh, comme que dañoo dem fofu gisatuñ fa suñu bop xamatuñu fu tek suñu tank motax ma ñu wax ak yow comme que Siré sa xarit la sa lépp la dama bëgg tay bés ni ki tay ñu jappalé Siré mu am Cité Senghor base bo xam te vraiment ku nekk dina xam ne Cheikh jité jappalé na Siré ja ci koñ bi tax lool rek lañuy wut tax ñun amuñu dara lu def li rek lañuy def suñu avec lañ am mercredi bu nekk ñu ñew tok nekk ci suñu avec di liggéey dañu sonn ci politiciens yi fi ñëw gisuma ko fi ñëwul Maodo Malick Mbaye si boppam sax ñëwoon na fii ñu jàppale woon ko mais demul ñu bàyyi. mais kon nag comme Cheikh nee na Siré Dia moo ko ñor Siré Dia la bëgg ci xolam man ko ñun itam ñun ñi nekk ñun ñëpp ci suñu mbootaay bi ñun ñëpp bés ni ki tey dinañu ñëw mobiliser wu ànd ak yow ñu jàppale Siré Dia ci ci koñ bi ba Siré am fi base boo xam te ne bu keroogee dañuy ñaan yàlla rek président de la république bi mu delluwaat ci ñoom. loolu rek la soxla loolu rek la ñu bëgg ak sama waa bi yëpp amuñu dara lu ñuy liggéey bu dul loolu rek la ut ndax man maa ñoom fu ma leen woo ñu uyu ma mësuma dem fenn woo leen ñu ñu safental ma wala ñu teg ma foo xam ne waruñu ma faa teg fu ma leen woo muy guddi muy ba bëccëg dañuy jóg ànd ak ma kon nag noonu ma ko daan defee ak ñoom démb ak berki démb tey it noonu lañ ko toogee di ko def fii maa ngi gërëm ñëpp nag di sant fàllu miit mënuma koo fay ndax sama góor la sama lepp la sama xarit la wax deug yalla lu nek dañ koy tok di waxtan ci lu rafet ci sirédia Dia euh, Samba Ndiaye mais it xam ko bu yàgg bu du tey jii du fi la ko xamee yàgg na ñu nek ci bi politique yak yep ñuy daje xamna ko bu Cheikh nak mom duma ko gëreem koy sant ndax lii li yep moko waral ndax mënon na ñëw ci mo wax ko ko mu ne ma kuta lol mun duma ci dugg mais dama ko wax mu ak sawarte kontaan ci bëgg ko ne ma dinaa la jàppale ñu àgg ba ci Siré Dia te du bu ñu gisul Siré nii ñu toog ba sire ñëw seet si la man ko amul problème man de loolu rek laa bëgg ndax yow loo bëgg rek bëgg naa ko te sama mbootaay bii lépp lu ñu bëgg rek bëgg naa ko mu ne ma amul problème ci la ci la ma waxee nii ba fàllu mi woo ma démb ci guddi bi may woo démb ay 8 la ma woo wax ma ko ma ne ko ah dina gàtt de suba mercredi bi ak euh, conférence euh, sëñ Mansour bi mu ne ma garaawul Cheikh ne ma garaawul nañ ko def rek nu mu mën a dee rek nañ xam ndax ñëpp a nga ca conférence ba ma ne ko amul problème nga woowaat ma nga ne ma dinaa ko def tey ma ne ko amul problème heure bu ngeen ñëwee ñu ngi toog di leen xaar wasalaam loolu rek laa amoon lu ma ciy wax di leen gërëm nag di leen sant seen teewaay rafet na. ba pare sama xarit bee ak suma euh, goro bee moom laay sant di Kouta di suñu présidente bañul dara di ñu sonnal dindi guddi dindi bëccëgal fu mu ñu wala nañ ko bu ñu woowee si rajo nañ ñëw ba mu saf bu soob yaa bul tiit dara bul jaaxle dara ndax baax nga te boot nga ñu jërëjëf.